أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مجدد الأعوان عاما بعد عام الذي افتتح بأفضل الأشهر شهر المحرم هذا العام أحمده سبحانه وتعالى على ما أولنا به من الفضل والإنعام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله سيد الأنام إخوة الإيمان والإسلام والإحسان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki M Media Group Nuuru Daarayni ñu ngi sant yàlla subhanahu wa taala di julli yonentam boobu sallallahu alayhi wa sallama di leen ziyaare di leen dokkeel di leen baal xaq di ñaan ngeen baal ñu àq di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu jéggal ñu suñu rëcc rëcc te nanguñ suñu jaamu yàlla di jëy saydil wujud waaye itam di jël ziar boobu ak nuyoo boobu rek di ko teg ci loxol suñu kilifa gi ak Cheikh Abdoul Ahad Mbacké di ko ziar bu baax di ko ndokkeel di ko ñaan mu jot li ñu nuyoo boobu ci mboole mbokk yi mbokk liggéey bu sell bi bé bi yëpp góor ñi ak jigéen ñi di nuyu di leen ziar ziar boobu ak nuyoo boobu di ko jaarale ci loxol kilifa gi di jégalu baax it gëj goo xam ne gi xañ na gëj nañ ko tàbbi ci jataay bi waaye rek loolu jamono la jamono moom ni muy dikk rek day soppeku wa tilkal ayaamu daawiluha bayna naas comme ni ko yàlla waxee kon lépp tawfeex la nag ndax ay xew-xew yu baax rek yu am solo yoo xam ni yàlla dana ci defal taw tawfeex rek mën na am man moo waral leen gàllankoor gi waaye sax nag du leneen loo xam ne lii luy sabab ak rëccu la kon bu ko defee ñu dellu si waat tey rek ci kàttan ak yàlla ak ndimbalam subhanahu wa taala bëgg dellu si waat ci liggéey bi rek tey nag ñu am fi ay tomb yu am solo yoo xam ne xam te ni muy doon fatwa rek moo tax des koy tënk waaye nag bu doon ten fatwa moom liñ fi am tey ci ay laaj moom benn bu ci nekk rek bu doon ni masalan dañuy def ab conférence di ca wax rek mënee su ko wax sax maanaam jeexal ko ci conférence kon laaj buñ ci mën a dugg rek lañ cay jël tey incha allah day doon loo xam ne ni dañu koo tënk rek ngir dëgg dëgg yi la ca jëmm ja mbokk ma doon laaj maanaam mu mën cee am ak leer ci li nga xam ne lii moom la ñuy nam na bi di ko yër ci téere yi ak delluwaay yi nga xam ni ci la ñuy dellu kon tey jii dañuy tàmbale rek ci laaj bu am solo lool boo xam ne bii dafa jëm ci li nga xam ne lii moo gën lépp nag muy alxuraanul karim mbokk laaj ko fi ne daal moom dafa gis ne a cheikh mouhamadul muntaxa mbàkke yal na ko fi yàlla yàggal bu baax a baax te dolli ko leer dolli ko dimbali dolli ko defal tawfiix ba lim bëgg a liggéey moom xaadimu rasul mu mën ko ko liggéeyal te nu ànd ko ak moom di jëy seydina muhammad sallallahu alayhi wasallam dane dafa gis ne kilifa googu daal day jànglu alxuraanu karim lu bare bare bari mu bëggan daal ñu gën cee def ak leeral ci wax lenn loo xam ne liy njëriñal jàng alxuraanul karim la ba ñu gën cee mën a ubbi suñu bopp gën cee mën a sawar gën cee mën a yebu ngir loo xam rek day dalay gën a dimbali ci nga xam naka nga cee war a mën a gën a taxawee dëgg dëgg taxawaay. kon mbokk yi ñoo ngi leen di ziare ci at mu bees mi nga xam ne nii ci lañu dugg di ñaan yàlla mu defal lu ko atam barke ak xiiwal ak tawfiix ak jéggal ñu suñu yëpp rëcc rëcc nag waaye tamit ndungul ñu suñu yën suñu yëppi jaamu yàlla te may nu ci gudd fan ak wér ak fekke ak tal ak mujj gu rafet ak xiiwal ak jàmm junu gën a mën a liggéeyal islam bi nga xam ne mooy suñuy teraangay àdduna ak alaxira su ko defee laaj boobu nga xam ne bii dafa aju ci alquran ñu bëgg cee tàbbi rek muy téere boobu nga xam ne bii dafa am dayoo boo xam ne bii maanaam màggaay goo xam ne bii maanaam cër boo xam ne bii yàlla cërale na ko alquran nga xam ne moo gën lu dut moom yàlla di wax subhanahu wa taala ci biir alquranul karim ci am solo goo xam ne gi alquran am na ko mu ne ma faratna fil kitaabi min shay'in yàlla ci bopp na ne téere bi ma wàcc ci yéen te mooy alquranul karim na ngeen xam ne bàyyiwuma ci dara dara lépp loo xam ne lii yëfi àdduna la ak yëfi àllaaxira lépp yàlla ne ne maanaam lépp def naa ko ci biir téere boobu di alquranul karim maanaam lu ngeen ca xam ak lu ngeen ca xamut lu ngeen ci yëg ak lu ngeen ci yëgut na ngeen xam ne daal amul dara dara loo xam ne li bàyyi naa ko maanaam mu war a nekk sama digganteeg yéen ci lu ngeen war a doxale seen adduna ak lu ngeen war a doxale àllaaxira lu dul ni indi naa ko ci biir téere boobu yàlla subhaanahu wa taala it daa de waxaat ci alxuraan ne wa in min cheyin illa indana xazainuhu wa ma nunazziluhu illa bi xadarin maalum daa de waxaat ne man yàlla day lépp loo xam ne lii xéwal la ak lu mu mën a doon muy leneen lu mu mën a doon rek lu nu xamam lu nu xamul rek ne ne yàlla ne dama ci yor ay magasin yu baree baree yoo xam ne yii ah du jeex mukk kenn mënta xam nu mu toll ku dul man mi ko sàkk waaye nag ne ne xéwal yooyu muy ay magasin yoo xam ne kenn mënta xayma la ca nekk ci xéwal nu mu toll ne ne lu ma ci wàcc rek dama koy natt ci na ma bëggee coobare woo mu wàcce noona ngir ma xéwale ko ña nga xam ne ñii ñoom laa ko bëgg a xéwale su ko defee ne loolu itam lépp buñ koy xool magasin yooyu yëpp maanaam mi ngi mu dëxëñ ci biir alxuraanul karim tey ne ne lu mu cay wàcce rek am na noo xam ne ni na lañ war a jëflanteeg alxuraan ba loola ca la yàlla di sukkandiku ci yërmandeem ngir mën a wàcce xéwal googu nga xam ne gi da ko jële ca magasin yooyu kon bu ñu gisee ne kilifa gi Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké yal na ko yàlla doole jàppale mu di nu jàngaloo alxuraan lu baree baree bari nanu xam ne rek magasin yooyu nga xam ne moom la yàlla yor dëxañ ko ci biir alxuraan nanu xam ne lay caabi la nu ciy gën a jotale ca xiwal yàpp mooy nu fonk alxuraanul karim yi gën koo di ko gën a sellal di ko jàng suñ kemtalaayu kàttan di ko teral te it képp koo xam ne ki xam nañ ne ni rek alxuraanul karim la it maanaam ñu bàyyi ko xel fonk ko di ko teral bu baax a baax ngir mën nañoo jàpp ne ñun kat magasin yooyu la nga xam ne lii maanaam mooy suñuy caabi ngir yàlla mën nañu mën nañu ko ubbil dañu defal ay xéwal yoo xam ne dañ koy jëriñoo àdduna ak àllaaxira daal mën nañoo jàpp ne kon mi ngi ci fonk alxuraan di ko jàng waaye tamit di ko jàngulu di ko teral di teral ña nga xam ne ñi ñooy waa alxuraanul karim daa di waxaan ne wa nazzalna alayka alkitaaba tibyaanan li kulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin yàlla yi tamit waxaat geneen xéwal gu rëy goo xam ne gii dencal nañu ko ci alxuraan muy wax ne ñeent yi de bokk na ci lenn li nga xam ne lii tax na ma wàcce alxuraanul karim ci yéen aay bii ma jàng nii léegi mooy yàlla dafa wax ne yow muhammad man maa jël alxuraan wàcce ko ci yow waaye wàcce googu moo ko wàcce ci yow nag la ma ca jublu ci lenn loo xam ne li tax na ma wàcce ko ci yow mooy tibyaana li kulli shay maanaam leeral lépp loo xam ne lii lu nekk la loo xam ne lii sàkku naa ko rek maanaam yàlla ne ne leeral naa ko ci biir téere bi muy benn wa hudan ne ne bokk na ci li tax ma wàcce ko ci yow muy lépp loo xam ne li ak njub la loo xam ne lii nit ki mën na caa tegu ba mën a am tere ngay àdduna ak alaxira mu dig jub ba mën a ñëw fi man ne ne mi nga ma denc ci biir alxuraanul karim wa rahmatan waaye itam ne lépp loo xam ne lii yërmande la yoo xam ne ji man yàlla maa ko yore di ko jox ku ma soob mi ngi ci biir alxuraanul karim wa bushra waaye itam lépp loo xam ne lii mbégte lay doon ñeel doomu aadama ñeel mbindeef rek yàlla ne ne maa ngi ko def ci biir alxuraan waaye ñeent yii yëpp itam yàlla dafa wëlbatikuwaat nag ne yii yëpp nag lil muslimiina du doomu aadama yëpp koy jëriñoo waaye ñeent yi kat ña nga xam ne ñi ñoo koy mën a jariñoo mooy ñi nga xam ne ñi gëm nañ ma nungul ma di ma jaamu yàlla di ma kennal kon gis nga ko ñeent yi nga xam ne ñi moom la yàlla daxañ ci alxuraanul karim kon day gën a tegtale solo si nga xam ne si jàng alxuraan am na ko ba ñu mën ci war a gën a góorgóorlu bu baax a baax daa di waxaat ne wa quraanan faraqnaahu li taqra'uhu ala nnaasi ala mukkasin wa nazzalnaahu tanzilan gis nga suñu kilifa gi Cheikh Mouhamadou Mountakha ni mu saxoo di nu digal saa su ne lu jàng alxuraan gis nga fii yàlla ne wa quraanan faraqnaahu ne ne alxuraan ji dama ko taqale lu tax ma teqale ko li taqra'uhu ala nnaasi ala mukkasin ngir alxuraan yow Muhammad foo mën di dekk maanaam nga di ko jàng ci di ko jàng di ko jàngaloo nit ñi ci njàng moo xam ne mi njàng mu sax a sax la moo xam ne mii doo ko war a mën a bàyyi benn bés wala saa soo amee jot rek da nga caa war a nekk wa nazzalnaahu tanziilan te nawet téere bi rëy na màgg na màgg yoo xam ne bii façon wàcc bi ma ko wàccee amut lenn loo xam ne lii wàccee naa ko noonu kon gis nga li Cheikh Mouhamadul Mountakha di digle ci ñuy jàng alxuraan lu bare bari gis nga ko day daal di dëppoog li taqra'uhu ala naasi ala mukkasin ngir ñuy jàng alxuraan di ko ànd ak nit ñi di ko jàng ci njàng moo xam ne mii mu saxal sax la kon lii tam lenn ci aay la yoo xam ne yii jël nañ ko ci alxuraanul karim muy wax solo alxuraan ak jàng mi nga xam ne mii suñ koy jàng moom lañ cay amee mu doon ab tënk boo xam ne bii rek dañ ko doon def ab tamhiid ab laltaay ci jël ci alxuraan di ci wax lenn ci loo xam ne lii njariñi jàng alxuraanul karim la bu ñu delluwaatee tamit ci mbindam a cheikh ahmadul xadim xadimu rasul nafaana allah bi barakaatihi dañuy gis ne njàng alxuraan ak fonk ko sëñ bi wax na ci ay njariñ yu bare bare yoo xam ne yi maanaam mënee su ko lim mënee su ko jeexal kon lii ma ci wax nii rek ci njariñ jàng alxuraan xam naa incha allah dañuy bëgg rek buñ ci amee luñ ci am wax tey leeral ko su ëllëgee bu yàlla dogalee ñu am beneen émission boo xam ne fàttawaa la it ñu mën a continuer ci leeral njariñ jàng alxuraan yooyu rek waaye mënee su koo jël su ko defee buñ delloo ci mbindam xaadimu rasul cheikhul xadim dafay wax ngir nu fonk jàng alxuraan ak yittewoo ko mu ne أما فوائد القراءة فقد رغب فيها قول بعض من نقد فمن أراد القرب من مولاه فليقرأ القرآن لا ينساه إذن شيخ الخديم بني دمتي مسالك الجنان دفاي وقت ay njariñ yu bari yoo xam ne yii jàng alxuraan maanaam lamboo na ko mu daal di ne amma fawaidul xalaati li nga xam ne lii mooy njëriñ jàng alxuraan day faqad raxaba fiha njàng moomu xemem loo nañu ko xawlu baadi man naqad waxu kilifa gu mag goo xam ne gii dañuy xañtu ay mbiram ba gis wax jooju mu wax ko muy wax ju rëy wax jooju nag nga xam ne nee na bi ko kilifa googu waxee boo déggee lam wax dalay xemem loo ngay jàng alxuraan ndax da caa wax ay njëriñ yu bari nee na wax ji mooy lii kilifa googu dane fa man araadal xurba min mawlaahu képp koo xam ne kii bëgg ngaa jege sa borom fal yaqra al quraana nay sax di jàng alxuraan laa yan saaw ay dañ koy firee laa yatrukuhu maanaam bu mu ko bàyyi maanaam bu mu def di ko jàng tey su ëllëgee mu bàyyi ko waaye nay sax su bu xëyee lu mu mën ci alxuraan rek maanaam mën ko caa jàng mu jàng ko laa yan saaw ji dañ koy firee laa yatrukuhu maanaam bu mu ko bàyyi mu ne sëriñ bi daan ne qultu ma daal di wax man Cheikhul Xadim ne fa man yurid rida fa man yurid rida rahmaani képp koo xam ne kii bëgg ngaa làq bëgg ngaa am ngërëmal yàlla fal yusbitan nay saxal tadabbur alxuraan yi jàng alxuraan te di ko settantal di jéem a xam la nga xam ne lii moom la alxuraan di wax daal di waxal ne adim tilawatan di zalika alkitab wala thalathatan min al ahbaabi yow mi nga xam ne mii sama taalibe nga na nga góorgóorlu ba lu sam njàng alxuraan néew néew na nga góorgóorlu ba bés bu nekk na nga ci jàng lu mu néew néew ñetti isib lu mu néew néew sam njàng na nga fexe ba bés bu mën a doon bul ko jël na nga ca jàng ñetti isib fii kulli yawmin ci bés bu mu noonu duuna hijraan it te bul ko gàddaay di ko jàng di ko bàyyi di ko jàng di ko bàyyi waaye da nga koy saxal suba gu nekk maanaam bés bu nekk nga fexey ba jàng ci lim bu tolloo nii ne ne li annahu maadatu kulli ilmin ndax ne ne alxuraan kat lépp loo xam ne li xam-xam la boo xam ne bi doomu aadama xam na ko ak loo xam ne li xam-xam mënu ci àgg alxuraan maanaam moom mooy cosaanal xam-xam yooyu nga xam ne yii moom la doomu aadama mi xam ak lëm mënta xam fii haasihi dunya ci àdduna gii ñu nekk bi xawlil xar mi su ko defee daa di waxaan ne wa afdalul naasi lazi taallama quraan rabbihi wa xayran allama sëriñ Tuubaa daa di waxaan ne bu ñu xool daal nit ñi ñi nga xam ne ñi ñoo ci gën wala ki nga xam ne kii moo gën ci nit ñi mooy ki nga xam ne kii dafa jàng alquraanul karim ba pare wëlbatiku wat nag di ko jàngale kon gis nga lii tamit du ab tënk la bëgg ci tamhid bi ci laltaay bi ñu def ngir waxtaane lenn ci njëriñ jàng alxuraan nga xam ne lii dafa bokk ci li ci Cheikhul Xadim wax ci téere boobu ñuy wax masalikul jinaan bokk yi ba tey xadimu rasul dinu soññ rek ci nuy saxoo di jàng alxuraanul karim di wax njëriñ ya mu ne képp koo xam ne kii daal bëgg nga mucc ci ay mbugal bëgg nga mucc ci ay yeddaange àdduna ak alaxira na ngay sax ci di jàng alquranul karim mu ne dum yaa axi ala tilawatil kitab fa innahu yakfi al azaba wal itab waaw dégg nga ne ne yow mbokk mi na ngay sax ci di jàng alquranul karim mii ndax sax ci jàng alquran kat ne na dina tax yow mi koy jàng nga mucc ci ay mbugal ak lépp loo xam ne lii luy waral ñu yedd nit la waaye tamit Cheikhul Xadim ne ne rum bi tilawatil kitaabi ma tasha min allazi yafalu kulla ma yasha ne ne yow mbokk mi lépp loo xam ne li da nga ko bëgg di ko sàkku ci yàlla ne ne boo ko jàll jaare ci alxuraanul karim boo ko jaaree ci di jàng alxuraan rek loola yàlla mën na la ko jàppandal nga am ko ndax moom mooy def lu ko soob waaye tamit daal di ne alxuraan tey di ko jàng yàlla def na ci barke boo xam ne bii ki koy jàng maanaam lam cay amee maanaam day raw lam ca doon jortu ci di ko yaakaar ci ay xiiwal ndax yàlla dina ko ci defal loo xam ne lii lu làqu la lu nëbb la loo xam ne lii maanaam bindeef mësta toog di xalaat ne lii doomu aadama mën na ko am mu ne barakatul quraani faaxat zanna fa fiihi ma anil waras takanna laa loo tax mu daal ne baadir tilaawatal kitaabi xaasida wajha lazi yëkk fil muniba rasida ne ne na nga gaaw di góorgóorlu di sax ci di jàng alxuraan te it boo koy jàng na nga koy jàng ngir yàlla mi nga xam ne nii maanaam képp koo xam ne kii da ngay tuub di dellu ci moom da lay fegal lépp loo xam ne di lu lay gàllankoor la ne ne boo ko defee itam bu fekkee yow mbokk mi sëriñ bi mooy wax ne ne soo bëggee li ngay ñaan yàlla mu yomb ak li nga bëgg ci sa bëgg-bëgg àdduna ak àllaaxira yàlla yombalal la ko na nga sax ci di jàng alxuraanul karim mu ne kitaabu zil jalaali wal ikraami fii jamiu suuli wal maraami na ne tamit bu ñu demee ci kër dëgg gee te mooy àllaaxira dëkku boo nga xam ne bi mooy dëkkab teranga bata te mooy ajjana na ne itam ak di fa daj xewal yoo xam ne yii xewal gu ñëw gën a neex xewal ga nga xam ne gii moo gën a moo jàll waaye nga am ay tawféex ak ay daraji yu kawe kawe yoo xam ne yii maanaam da nga koy amee foofee ca kër ak àjjana googee ne ne na ngay sax ci jàng alxuraanul karim daal di ne sawaabu man yaqra'uhu fil janna daaril xaraay wal mina wal minna wasilatan inda malikin muqtadir tuuba li abdin lil kitaab yi yabtadir ne na sax ci jàng alxuraan daal ne na aw yoon la woo xam ne bii ku ca aw na nga xam ne yaa nga jëm ca yàlla ma nga xam ne mais yàlla mi nga xam ne mii moo mën lépp nag tey def lu ko soob di ci coobareem ak xam-xamam kon na ne képp koo xam ne kii yaa ngi gaawtu di góorgóorlu di sax ci di jàng alxuraan na nga xam ne ak texe ñeel na la yow jaam boobu kon na ne yow sama taalibe bi daal maa ngi lay dénk lii na nga ci góorgóorlu seq ko alxuraan ci di ko jàng ci bu dee bëccëg na nga sax ci alxuraan di ko jàng bu dee ak guddi itam na ngay góorgóorlu di jàng alxuraan waaye tamit soo wéetee na ngay jàng alxuraan waaye tamit soo nee ca mbooloo may na ngay góorgóorlu di jàng alxuraan moom daal na ne iqra'hu fi layli wa fi nahaari li wajhihi wa sirri wal ijhaari moom buñ koy tënk rek mooy foo nekk rek na nga taxaw alxuraanu karim di ko jàng xaadimu rasul moomu nag defe na bu ñu xoolee njariñ li nga xam ne moom la ko yàlla defal leer na nañ nëbbu tootut kenn koo xam ne kii yor nga ay bët di gis yor ay nopp di dégg waaye sab xol itam leer ngay xam mbir yi nan la defee nan la demee te dara sababu ko waralu ko ludut mu doon jaam boo xam ne bi jaam bi yàlla la di ko jaamu bokkaale ko dara kennal ko waaye tamit sax ci di liggéeyal sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam te liggéey booba dara mosu mënu maanaam mosu caa jiital lenn lu dul alxuraan lay jiital teg ca sunna dog caa teg leneen loo xam ne lii moom la cay teg bu ko defee noonu na la fale na nga sax ci di jàng alxuraan tey dundal sunna mu ne nafaani wa biya yan faul wara xaadimu rasul gis nga man day sama jaamu borom laa di ko jaamu waaye nekk koo xam ne ki dama liggéeyal ndawam loolu muy Seydina Muhammad waaye ci lenn loo xam ne lii njariñ li nga xam ne lii moom laa am mooy yàlla jariñ na ma njariñ lu wér loo xam ne lii man maa ngi koy jariñoo waaye tamit yàlla defal na ma ay daraja yoo xam ne yii mbindeef yi sax maanaam dañuy jariñu ci sama barke maanaam am na ndimbal yoo xam ni sax yàlla da koy defal mbindeef yi te Cheikhul Khadim ne ne maanaam ci man la koy jaarale comme ni ñu ko mën a waxe Xaadimu Rasul daal di waxaan ne zimaamu wara asri ladallaahi fi yadi wa ma rumtuhu min malikin xaada bil an yi gis nga ne ne yàlla jariñ na ma jariñ loo xam ne lii la ci ëpp ci alxuraan la jaare ba tax na nosob mbindeef yi nga xam ni ñoom laa jamonoonteel ñëpp bu ñu dajee fa yàlla ne ne yàlla da koy teg ci sama loxo maanaam man maa ko yore te ne ne loolu kat sàkkuma ko ci sama boroom waaye nag yàlla ci xéwalam ak coobareem rek la ma ko defale mu ëmmatu ñeel ma ci xéwal yoo xam ne yii yàlla dama ko defal waaye tamit ci meneen firiwé tam muy wamaag yi mu ne day day am na ñoo xam ne dañ naan tey ne ne lépp loo xam ne lii sàkku naa ko ci sama borom rek loolu day yomb jàpp ndi lool bu ko defee maag yi dañu am na ñoo xam ni dañ koy def xarfu naf yi ñi jàng grammaire naxu xam nañu ko boo ko defee xarfu naf yi mooy wamaarumtu hoo te ne ne loolu kat sàkkuma ko mooy yor na sa mbindeef yi yor ko ci sama loxo ne ne sàkkuma ko ci sama borom waaye nag dafa ommatu rek ci ay xewal yoo xam ne yi dafa soob yàlla mu defal ma ko waaye maag yi boo ko defee mawsula muy wamaarum tuhu te ne mu ne maanaam ñu koy firi lépp loo xam ne li sàkku naa ko rek ci sama boroom loolu day ommatu ñëw kon ñaari firi ne yëpp boo ko ci firi rek ci bëyët gi mu aju ci wàllu maagoogu loolu day mën a dem daa di waxaan ne nafaan naafio nafaan jazaba lii xalba kulli faisin fan jazaba xaadimu rasul ne yàlla mi nga xam ne mii de mooy aji jariñee jariñ na ma njariñ loo xam ne lii ci kaw njariñ loolu ci la ma xëccale xolab képp koo xam ne kii nan ngaa texe borom xol boobee daal di ommatoog jëmmam daal di ñëw topp si ma ci fi may tënk lenn ci njariñi jàng alxuraan tey jii ci émission bii mooy li nga xam ne lii moom la xaadim moom rasul wax muy jaawartu bil furqaani rabbiyal mu'in malaktu nafsiya wa zahzahtu laim xaadima rasul dafa wax ne sama borom mi nga xam ne mooy aji dimbali ji day dëkk na ak moom maanaam nekk naa ab dëkkandoom maanaam dëkk naa ak yàlla waaye dëkk googu ma dëkk ak yàlla lan moo ko sabab mooy jàpp alxuraan fonk alxuraan di jàng alxuraan di settantal aaya di ca jaamu sama borom ne ne dëkk googu nga xam ne gi moom laa dëkk ak sama borom te mooy aji dimbali aji dimbalee jë ne ne ci alxuraan moomu laa ko amee ne ne itam ma laktu nafsiya te dem naa ba jàng moom muy jàng alxuraan bokk na ca la ma ci yàlla jariñe mooy dem naa ba sama bakkan bi nga xam ne mooy noon bi gën a tar ci noonu yi man dem naa ba man maa ko moom nga xam ne sama bakkan bi maanaam dootuma xiir mukk ci ak mooy yàlla ak def loo xam ne lu neexut yàlla la waaye daf ma topp ma moom ko nga xam ne ci jaamu yàlla rek la may xiir léegi ak loo xam ne di lu baax la waaye sawaan ba bakkan bi dootuma ci jéem a xiir mukk wa sax sax tolaay ne it seytaane mi nga xam ne mii itam mooy sunu noon bi gën a garaaw gën a doy waar gën ñoo sonal it ne ne moom it sori naa ko sori waaye boo xam ne bii moom itam dootuma yàqal dara mënatuma yàqal dara te ne loolu lépp it maa ngi ko amee ci sax ci alxuraan fonk ko di ko jàng kon gis nga ñett yi mu wax muy jaawartu ji ak malak nafsiya ak wa zaxzaxtu layin yii yëpp dana ay xewal la yoo xam ne yàlla defal na ma ko muy dëkk naa sama borom moom naa sama bakkan moom naa seytaane yëpp ne ne maa ngi ko amee bil furxaan kon lii lenn la ci tënk la loo xam ne lii dañ ko indi tey rek ci lenn ci njëriñ jàng alxuraanul karim xam naa yal na yàlla doole defal tawfiq suñu ko fekkee tey rek ba am beneen émission insha allahu luñ ci mën a leerala rek ci njani yi insha allah ñu boole ko ci rek doo ko jàll ca la nga xam ne nii mooy yeneen laaj yi kon beneen laaj bi ñu jëlee mooy dafay am mbokk muy wax hël ak dif daul mayitu najasatun mbokk mi day laaj laaj bu am solo muy laaj bu jëm ci wàllu ndundit yi nga xam ne yii moom la yàlla def ci kaw suuf ñu mën leen wax ay mala muy yu mag yaag yu sew sewaan yooyu yëpp muy laaj nag ndax mbott su dee day nekk sobe wala déet loolu itam dañ ko naan min al muqarrar shar'an an al asla fi l ashyaa'i wal maxluqaati at tahaaratu wala yuxkamu bi najaasati shay'in illa ida dalla shar'u ala najaasatihi ne ne sariya daal lañ ci saxal mooy lépp loo xam ne lii gis nañ ko muy mbir yi nga xam ne yàlla da koo bind ne na lépp seeni cosaan dafa laam ndax yàlla moom lépp loo xam ne lii bind na ko rek maanaam dafa laab maanaam ndax bëgg-bëggam la mu coobarewu ko sàkk ko bind ko kon buñ delloo ca cosaan la yépp ne na day nekk lu laab kon ne na mbir mu mën a doon wala lu mu mën a doon bala ñuy wax bala ñuy xool ne lii dafa sobe maanaam dañuy sukkandiku ci sharia ba am lu rax ca loole yàlla bindeen loo xam ne lii sobe lañ koy tuddee sharia ne nangam lii kat dafa sobe léegi ñu dog a mën a wax ne nangam lii dafa sobe su ko defee dane wal xayawaanaatu muxtalifatun wa qad ixtalafa al ulama fi xukmiha min xaytu taharati wa najasati ne ne bàyyi may dañoo wute dañoo bari dañoo bari ay xeet ne ne noonu ñu bare yi tamit maanaam ci la boroom xam-xam yi wuutee ci atte bañ ci atte ci bu dee ci wàllu ya ca laab ak wàllu ya ca xam ne yi dañoo sobewu ne ne boroom xam-xam yi dañu caa am ak wóote gu bare bare bare wa mujmalul kalaami fiha ne nag bu ñuy tënk ci wàllu ndundir yooyu muy bàyyi ma yooyu ñuy tënk lañ cay wax ci àtte boobu muy lii dafa lii yii dañoo laab yii dañoo sobe ne ne buñ koy tënk dañ naan kullu xayawaanin makuulil laxmi fa huwa taahirun bi ijmaalil ulamaa borom xam-xam yépp dëppoo nañ ci ne bépp bàyyee ma boo xam ne bii aw yàppam dañ koy lekk ne ne bàyyee ma boobee dafa laab ci jamono ji muy dund ne ne bépp bàyyi ma boo xam ne dañuy lekk aw yàppam maanaam lislaam daganal na ñu lekk aw yàppam ne ne jamono ja muy dund dafa nekk loo xam ne nii lu laab la wal xayawanaatu lati tuxaalitu nnaasa taahiratun walaw kaanat xayra makulati laxmi ne ne itam am na yenn bàyyi ma yoo xam ne yi dañoo miinanteeg nit ñi di jaxasoo nit ñi maanaam dëkk ak nit ñi ne na ñooñu itam dañ leen di jàppe ci bàyyi ma yi nga xam ne yi dañoo laab donte bàyyi ma yooyu itam du ñu leen lekk maanaam du ñu lekk seenu yàpp waaye miinante nañu nit ñi lool mu ci wax kal hirrati lu mel ni muus xam ngeen ne muus dee su ko lekk dañu koy bañ waaye gis nga ko dañu jàpp ne dafa laab ndax dëkk goo xam ne gi dëkk na ko ak doomu aadama yi wal ximaar ak loo xam ne mbaam yi nga xam ni moom la ñu takk ak di leen sëf yu mel noonu ne na ñoom itam dañu laab ci jamono ji nga xam ne ji dañuy dund doonte duñu leen lekk waaye itam wal kalbu wal xinziir najisaan yi ne na nag boo delloo ci bàyyi ma nga xam ne dañu dëkk doomu aadama yi ne ne bu dee xaj la bu dee mbaam xuux la ñoom ñaar moom dañoo sobe ñoom ñaar sobe lañu waaw bu ko defee suñu demee ci ngërëm imam malik ngay day danaan wa indal imaami malik alxayawaanatul xayatu kulluha tahiratu imam malik am ngërëm dañ ci bind te la ñu jàngale ca fiqh ne bàyyi ma yëpp yi nga xam ne dañoo yor ak ruu di dund rek feeg ñu ngi yor ak ruu di dund maanaam ne yëpp yëpp a làpp ñoom loolu la ñu wax wal xayawaanatul maytatu wa hiya kullu ma maata min al xayawaani wal insaan sawaun maata xatfa an fihi aw zukiya zakatan la tufidu xilluhu ne ne itam beneen xeet yi muy bàyyi ma yi nga xam ne yi dañoo dee maanaam moo xam dañoo médd wala ñu rey leen rey maanaam rend leen rend koo xam ne gii du rendeek sariya maanaam nañ leen rendee sariya waxut ñu rendee leen ñooñu moom dañuy sobe sobe lañuy doon kon bàyyi may nga xam ne yi dañoo dee bu boobaa moom dañuy nekk sobe ndax ne ne wal xayawaanaatul maytatu wa hiya kullu ma maata min al xayawaani wal insaani sawaun maata xatfa an fihi aw zukiya zakatan la tufidu xillahu wal maytaatu kulluha najisatun illa maytatal baxri nen daal lépp loo xam ne li dafa dee rek da cee boole nag doomu aadama yi ak jur gi ne ne yépp ay sobe lañu illa maytatal baxri ba mu des loo xam ne lii dañ ko génne ci géej mu medd gis nga géej xam nga li ciy génne am day dee waaye boobu moom bokkul ci yi nga xam ne dafa sobe ndaxte sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci géej ne wa huwa tahuuru maa'uhu alxillu maytatuhu ne ne géej moom ndox mi laab na saa su ne mën nga cee jàpp mën nga cee sangu farata waaye tamit lu ci génn rek ci wàll yooyu ñuy lekk xañ na du ñàkk am na ci yoo xam ne borom xam-xam ne dinañ ci wute waaye daal ne ne moom géej daal am ndoxam laab na mën naa laabal waaye tamit dañ ci génn nga xam ne bu génne rek daal di médd dee ne ne loolu tamit lu laab la su ko defee ne ne wa yufarraxu bayna thalathin min maytatil aadamiyi la ma waxan fee ne doomu aadama yi sax bu ñu faatoo dañuy nekk sobe dane bu dee ci wàllu doomu aadama ni daal ci bu ñu faatoo maanaam dañ leen di def ñetti xaaj xaaj bu njëkk mooy achahidu achahidu tahirun bittifaaxil ulama ne ne koo xam ne kii shahid la muy martir la mooy koo xam ne kii dafa dee ci yoonu yàlla ne ne kooku moom ku laab la ci loo xam ne boroom xam-xam yépp maanaam d'accord nañ ci laabam googu nga xam ne gi moom la laab ba ca toppaat ndax gis nga bu dee shahid la muy ki dee ci yoonu yàlla maanaam ci xare walla ci yoonu yàlla rek gis nga duñu ko sang duñu ko wutal malaanam sàngaay waaye dañu koy suul noonu rek maanaam ak yéreyam faatuwaaleeg yépp loolu tax dafa nekk ku làpp beneen xaaj bi al mu'minu baada taxsilihi ne itam bu dee nit ki ab jullit la bu faatoo feeg sang guñ ko day nekk sobe waaye buñ ko sangee nag day daal di nekk ku làpp koo xam ne gi boo ko laalee du am sobe bu ko defee ñetteel bi mooy al muslimu xabla xaslihi yun jisu bin mawti gis nga ne ne bu dee nit julli la it nag it bala ñu koy sang day nekk koo xam ne kii maanaam ko sobewu la kon ñetti xaaj yi daal bu dee ci wàllu nit ki bu faatoo la mooy ku jëkk ki mooy shahid bi ki dee ci yoonu yàlla moom dafa laab mubasharatan bu dee jullit bi la itam buñ ko sangee rek mu daal di laab waaye itam jullit bi bala ñu koy sang day nekk loo xam ne lii sobe la soo xam ne si ku ko laal da ngaa war a raxasu nga xam ne ña dee nekk sax di ko sangu bu doon ne dañoo yaram jàpp suñ paree dañuy war a jàppaat kon bu ko defee lii mbokk mi laaj dal ci wàllu mbott mu dee mbott mu dee moom sobe la mbott mu dee sobe la kon loolu mooy tontu li nga xam ne bii lee ab tamhid lañ ko juróot def rek muy laltaay waaye mbott mu dee daal boroom xam-xam yi nañu sobe la yeneen laaj yi ci toppaat mbokk mi di ko laaj day wax limaada yatawaarasu bunnu zina ma ummihi duna abihi day laaj lu tax kooku ñuy wax doomi njaaloo mën a donante ak yaayam waaye du donante ak baayam maanaam doomi njaaloo sharia dane bu baayam faatoo moom doom ji du ko mën a doon waaye doom ji itam bu faatoo kiñ ne mooy baayam du ko mën a doon waaye mën naa donante ak yaayam muy laaj loolu lu tax dañ koy wax ne ko waladu zina nasabuhu yasbutu min ummihi wala yasbutu min abihi sharia dafa atte ne kiñ na doomi njaaloo la maanaam maanaam aw askanam mi ngi saxa ci yaayam maanaam yaayam la askanool waaye aw askanam saxut ci digganteem ak baayam maanaam sharia nungur ne mook baayam dañoo bokk loolu moo tax ñu ne kiñ ki doomi njaaloo ji dal kiñ ne mooy baayam du doonante ak moom ndax sharia dane moom bokku ñëw askan ndax leerut waaye dina doonante ak yaayam ndax yaayam moom leer na nañ ne moom moo ko jur waaye kiñ ne mooy baayam maanaam dañu ko wax rek waaye aw lënd da cee am ndax bi ñuy ànd sharia daganalut seen daganalut seen diggante te jéem jigéen googu koy def di njaaloo ak kooku mën naa dem ci keneen njaaloowaat ak moom mën naa demaat ci keneen njaaloowaat ak moom ba ñu di ëpp lim bu boobaa du ñu mën a xam dëgg-dëgg yi ñooñu mu àndal ñëpp kan moo ci waajuru doom ji loolu tax gis nga sharia moom li muy atte day leer nañ bu dee ne yaay ji la moom leer na ne moo ko ëmb daal di koy jur wasin ko waaye bu dee ni dafa fekk ne takkaguñ ko woon te dafa njaaloo moom jigéen gi mën naa am du yem ci kenn kooka mën na ko def ak ñeneen ak ñeneen su boobaa day daal di lënt charia dootul xam dootul nu ngi ne kii ñu ne mooy baayam moom mooy baayam loolu moom mooy sabab bi bu daal di waxaat ne beneen laaj bi mu ne man sharaka fi mirasin wa maata xabla injazi hadal miras fa kayfa mirasuhu ne ne koo xam ne kii dafa bokk ci miras maanaam dafa am ku faatu mu am ab cër ca miras ma waaye kee faatu ne moom mii bokkan ci miras mi moom itam bala ñuy miras kale moom itam dafa faatuwaat moom itam ci ginnaawam te fekk na moom ci miras mi la bokk kon ne ne kii mujj faatu nan lañ koy miraase loolu dañ ko naan yun jëzu al mirasul awwal summa yudammu nasibul mayitil axir ila malihi wa yun jëzu mirasuhu kooku niñ koy miraase mooy dañuy miraas ka lay jëkk a faatu te mu amoon cib cër moom mii mujj faatu su ko defee cëram boobu nga xam ne bii moom la am ñu jël ko boole ko moom mi mujj faatu li mu am ci alal moom itam daal di koy miraas ña nga xam ne ñii ñoo bokk ca miraas ma ñu jox leen ku ci nekk la cay sa wàll maanaam moom miraas noonu lay war a deme beneen laaj bi Basiru Fay moo koy laaj moom day laaj bay bi nga xam ne ay njaay àll lañ leen di tuddee maanaam yay na ca àll ba masalan mën nañ cee boole itam yi ci kër gi yan ñoo ci dagana lekk ak yan ñoo ci yoo xam ne dañoo sopp maanaam maanaam may nañ ñu lekk ko maanaam ak yoo xam ne dafa araam ñu lekk leen wala ñu sib ko maanaam al jaaia al xalaalul akli lay wax wal jaaisul akli wal makruhul akli ci njaay àll yi maanaam bàyyi ma yi ne ne faqad xassa al islaamu ala al akli al xalaal wa haddara min al akli min al xaraam dañu xam ne sharia bi ñu dund muy islaam dafa nekk diina ju sell joo xam ne jii danoo soññ ci muy lekk lu dagan waaye itam danoo moytuloo lekk lu araam qaala allahu taala yaa ayyuha allazina amanu kulu min tayibaati ma razaqnaakum yàlla dane yéen ñi nga xam ne ñi gëm ngeen ma na ngeen di lekk ci yu teey yi nga xam ne yi moom laa leen wërsëgale maanaam yi nga xam ne yii moo dagan ci yéen yàlla ne ne dee leen ko lekk fali itaabati li mataami atharun kabirun ala al insani fi sulukihi wa xayaati xalbihi wa xabuli duaihi bi xilaafi al mataam al xabis alladi huwa bi diddi zalika nanu xam ne nag lekk loo xam ne lii aw ñam woo xam ne bii dafa teey maanaam dafa dafa lew dafa dagan ne na lekk googu ñu koy lekk day am ab jeextal bu rëy rëy boo xam ne bii da koy def ci nit ki ci maanaam ci ay jikkoom ak ci ab xolam ak it ba ci ñaan gi nga xam ne gi moom lay ñaan yàlla sax ne ne lekk googu ngay lekk bu fekkee ni lu dagan la maanaam da cay jeextal kon safaan ba mooy bu dee di lekk goo xam ne gi dafa araam maanaam lislaam da ko araamal wala mu nekk lekk goo xam ne gii baaxut moom itamit day am ab jeextal boo xam ne bii mooy safaanam dina tax nit ki jikkoom du doon jikko yoo xam ne yu dëppoog lislaam la waaye tamit ab xolam itam dina doon loo xam ne du am leer rek day mën a jaamu yàlla dëgg-dëgg waaye itam day dem ba ca ñaan yi nga xam ne moom la ñaan sax lekk googu muy lekk te baaxut wala mu araam maanaam day tax yàlla du nungu ak ñaanam kon yàlla sallallahu alayhi wa sallam dane inna allaha tayyibun laa yaqbalu illa tayyiban yàlla dafa teey te du nungu lu dul lu teey maanaam lekk daal la ca gën mooy ñuy wut loo xam ne lii sharia daganal na ko ñu di ko lekk te moytu ya nga xam ni da ko araamal ndax ne ne day am ab jeextal bu rëy rëy ci yeemale danoo muy jikkoy nit ki ak ab xolam ba dem ba ca ay ñaanam sax bu dee ni lu dagan la yàlla mën na cay nu ngir dagan nga waaye bu dee ni lu ñàkk dagan la mën naa bañ a nungu ak ñaanam mu ne kon fa min alxayawaan alxalaali al akli albattu bi anwaahi wa zabiyu bi anwaahi wa taawusu bi anwaahi walxamaamu bi anwaayihi wannaamu bi anwaayihi wa zarafatu da ne kon bokk na ci ndundet yi bàyyi ma yi nga xam ne mën naa am yii dañu ne ci kër waaye ci ëppit mën naa am ci àll ba la ñu nekk ne ne yii moom sharia lislaam daganal na ñu mën leen a lekk te day nekk lu dagan muy albattu ne ne loolu ñuy wax kinaara aku xeetu ginaar wu mën a doon day yóbbaale ñoom borom dongo yooyu muy ginaar yaak ñoom seen yooyu azabiyu bu dee kéwél la xam nga kéwél la ci ëpp ca àll ba lay dunde waaye bokk na ci li sharia daganal ak lépp loo xam ne li xeetu kéwél la ak taawus muy picc ma muy wax jàmbu jóob moom itam ak yi xeetu jàmbu jóob bu mën a doon dagan na ñu mën koo lekk alxamaamu bi anwaay bu dee ne ay pitax la itam ak xeetu pitax wu mën a doon ca ya dagan la bokk annaamu muy koppin koppin itam ak i xeetam bu mën a doon dagan na wa zarafatu ak rab woowu ñuy wax njamala muy ne ca àll ba moom moom itam ne ne bokk na ci njaay àll yi nga xam ne yii dafa dagan ñu mën leen a lekk seenu yàpp bu dee ci wàllu luñ naan bu la neexee mën nga koo lekk bu la neexee mën nga koo bañ a lekk mooy al jaiz dañ ci jëlu mu ne mu ne wal xaylu yajuuzu akluhu li xadiisi nahyi nabi sallallahu alayhi wa sallam yawma xaybar an luxumil xamir wa raxasa fi luxumil xayli dégg nga ne ne bu fekkee lu mel ni aw fas la kooku ne nañ maanaam may nañu nit ki su ko neexee mën na koo lekk su ko neexee mu bañ koo lekk ndax dafay am xadis boo xam ne Seydina Muhammad ne ne ba ñuy def xare boobu ñu doonoon ca xaybar bokk ci xare yonente bi ne ne Seydina Muhammad da leen a terewan yàpp mbaam ya waaye bàyyi leen ñuy jël fas ya di ko lekk maanaam maanaam daal xaybar ba ñu def xare boobee yonente bi dafa terewan jullit ñi ne leen bu leen lekk mbaam yi waaye fas yi moom bàyyeen na leen ñu koy lekk te boo koy xool la ma doon wax fee ci wuuteeg borom xam-xam yi am na ci borom ngir yi ñoo xam ne ñi dañ ne yajuuzu aklu laxmil xayli mayees na nit ki su ko neexee yàpp fas mën na ko lekk bu ko defee wa raxasa fi luxumil xayli bu ko defee yi nga xam ne itam dafa dagan itam minha bahimatul an'am maanaam bahimatul an'am mooy xar ak bëy nag ak giléem yii tamit bokk na ci nga xam ne dafa dagan ñu mën leen a lekk waaye tamit bokk na ca alximaarul waxsi yi mbaam àll moomu nga xam ne mi day ne ca àll ba am na moom njaay àll yi mu doon wax gis nga ne ne mbaam moomu xam ne mi ca àll ba la nekk ñu koy tuddee mbaam àll nga xam ne bokkut ak mbaam yi dina ci kër gi ne ne yow dem ci aljaiz la bokk ak adab bu muy mbët mbët itam dagan nañu mën koo lekk wa min al xaywaan ma warada nasu bi taxrimihi ne ne nag bàyyi may am na ci yoo xam ne moom nasul xadis maanaam sharia maanaam da ko araamal mu ne lu mel ni al barlu muy berkele mooy doomi façon mbaam lay doon alximaarul ahli yi ak mbaam yi nga xam ne dañuy nekk ci kër yi di di leen sëf di leen takk saret boobu dafa aram alxinziir bokk na ca itam muy mbaam xuux waaw yii tamit moom dañoo aram nga ñuy lekk seenu yàpp waaye nag wa kullu zinaabin min asibaa'i muharramul akli li xadiisi anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam naha an akli kulli zinabin min as-sibaa waaw ne nit njaay àll yooyu lépp loo xam ne dañ ci am dafa am ab sell boo xam ne bi da cay fàdd da cay rëbb maanaam da cay dimbali ko di fàdd di ko lekk ci sellam boobu mu ne ne bu ko ca am rek maanaam ne ne boobu moom dafa araam ñu di ko lekk njaay àll yi ne ne bu ci amab sell boo xam ne da koy dimbalikoo ci di fàdd di lekk ne ne dafa araam moom ñu lekk ko ndax xadis bi dafay wax ne Seydina Muhammad tere na lekk lépp loo xam ne dafa am ab sell ca njaay àll ya maanaam jur gën a ca àll ba nga xam ne dañuy fàdd te ci seen sell yooyu la ñuy dimbalikoo ngir mën a fàdd la ñuy fàdd ne ne yooyu yëpp dafa araama lekk ne nag wan naa bu huwa sinnu lati yataqawa biha sabo wa yaadu biha ala nnaasi wal xaywaani fa yastaada fa yastaadhu ne ne ab sedd nag dañ cay wax mooy bëñ bi nga xam ne bii jur googu mooy njaay àll yooyu ne ci àll ba dañu koy am te di ca jalgati di ca fàdd di ca fàdd nit ña di ca fàdd bàyyi ma yeneen ya nga xam ne dañ leen a ëpp doole maanaam di leen rëbb di leen jàpp ci seen sell yooyu di ca dimbaliku di fàdd ju googu di ko lekk ba ca nit ñi sax kon loolu gis nga dana yooyu yépp dafa araama lekk mu ne nag wal mu'tabaru fi lmuharram min assibaa'i istimaaluhu ala wasfayni kawnuhu zanabin wa yaadu bi hada naab kal asadi wa zibi wa namiri dane li ñuy jàpp nag ci ngir ne njaay àll yi kët da yii dafa araama lekk ngir dañoo am ay sell ne ne day fekk ne day am ñaari melokaan yii muy day am ab sell te sell boobu maanaam ci lay fàdd jur geneen nga ca àll ba ak it doomu aadama yi di leen ca fàdd ne ñaar yi daal bu àndee mooy yor na ab sell waaye itam da ci dimbaliku di fàdde di ko lekk ne ñaar yi moo ci daje bu ko defee bu mel noonu rek maanaam aw aw yàppam dafa aram ndax jur gi am na ci ñoo xam ne dañu am ab sell waaye duñ ca defee dara maanaam jur gi lewet la ñuy doon ne ne yooyu moom bokkuñu ca ne ne yii muy lay wax nii nag da faaw day am ñaari melokaan yi mooy day am ab sell te sell boobu da ci dimbaliku di ci tooñ di ci fàdd ay nit ak ak jur lu mel ni kal asad lu mel ni gaynde sellam boobu noonu la cay def da ciy fàdd di ci lekk tam nit ak mbàyyi may la ca maasale wa zib ak ak till wan namir ak ak segg ak xeet yooyu nga xam ne yëpp daal moom dañoo am sell moom te di ci jalgati waaye ne ne wa fiha wa ma fiha ahadul wasfayni an naabu wala yaadu bi waaye ne ne yi nga xam ne yi am nañu ay sell waaye duñ ca tooñ maanaam duñ ca fàdd kenn ne ne fa laysa min asiba al aadiya nekkut njaay àll yi nga xam ni dañuy tooñ kon yooyu dañuy nekk yoo xam ni bu ñu amee sell itam mënees na leen a lekk ne ne bokk na ci itam bu dee ci wàllu picc yàlla ne ne wa kullu zi maxlabin min at-tayri muharramul akli li xadiis yi naha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an kulli zi naabin min as-sibaa'i wa an kulli zi maxlabin min at-tayri ne ne bu dee ni ci yi naaw la ne na tam picc moo gis muy naaw tam am ay wex maanaam wel lañu koy mën a tuddee boo xoolee seen tànk ay welay am ne ne yooyu itam dafa araam ñu lekk leen ndax Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ne ne dafa tere ci lekk lépp loo xam ne ni boroomam sell la ci njaay àll yi te di ca jalbati maanaam di ca fàdde waaye tamit lépp loo xam ne day naaw te am ay wex ne ne itam loola dafa araama lekk ndax ci weyam yooyu moo doom ci la dimbandikoo di ci jalgati di ci fàdd yeneen ya di leen ca di di ca rëbb di fàdd lañ cay fàdd ñoom picc yooyu donte ay picc lañu waaye am nañu ay wex yoo xam ni mën nañ ca dimbandikoo di ca tooñ di ca fàdd ne ne picc mu mel noonu itam day nekk loo xam ne ni day araam ñu lekk ko wal muraadu bi zalika ida kaana xawiyan yaadu bihi ala gayrihi ne ne nag dañ ci jubu mooy picc moomu bu weyam woow demee ba nekk wu am doole woo xam ne lii maanaam da cay jalgati da cay fàdde lay wax bu boobaa nag day daal di nekk lu araam wa yastaaru bi maxaali bi yi nga xam ne day rëbb ci weyam yow nga xam ne yii moom la sax lu mel ni kal kal kal uqaab wal buumati wal baasi wal xuraab ne ne lu mel ni baaxoñ ak ak céeli ak ak ndobin ak ak akam looy ne ne yu mel noonu daal moom ñoom itam dañoo am nga ya nga xam ne dañ ci këf di ci fàdd di ci rëbb kon ñoom itam day araam ñu lekk leen bu ko defee kon yooyu itam leen la ci tënk boo xam ne rek wàllu laaju basiru fay boobu kon wàllu xeet yi bàyyi ma yooyu daal mu ngi doon yee yi ci dagana lekk ak yoo xam ne may na nit nit ki mu tànn su ko neexee lekk ko su ko neexee du ko lekk waaye am na ci yoo xam ne itam dafa araam moom waru koo lekk beneen laaj bi ci topp ñu jël ko ci suñu doyen bi suñu suñu oustaz al cheikh mouhamadul mourtada badiane touba touba ñaxab ñu di ko ndokkeel bu baax di ko ziyaare kontaan lool bu baax wax dëgg yàlla ci laaj bi kontaan lool ci taxawaay bi ci xam-xam bu rafet bi bu sell bi wax dëgg yàlla ñu xam yéeneem bu baax a baax xam xam-xam am xam ab xam-xamam itam ak ak sellam bu baax a baax ñoo ngi leen siyaar bu baax a baax di leen ndokkeel oustaz te it xam ne xañ na moom laaj bi moom xañ na dañ ko mënta dellu rek waaye kilifa laaj la moom ci wàllu lu jëm ci xam-xam moom lu doy doy waar la ci fi ñu toll ak fi nga toll waaye nag xam naa ñu jéem cee nam na bi rek jéem cee dimbaliku jéem cee dimbal mbokk itam waaye wax dëgg yàlla moom xaw naa di si ñoon lool daal lool xaw naa di si ñoon loolu daal xam naa ngeen ñaan rek yàlla jàppale ñu ci bu baax a baax barke seen Xadim waaw su ko defee ustaas dafay wax ne manil muxaatabu fi xawlihi taala fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul wa man hum ulul azmi wa ma sabruhum ustaas dafay laaj ci loo xam ne ayat alquran la laaj yu ama am solo muy dafa ne fasbir kama sabaru ulul azmi min ar-rusul dafa am ci alquran aay bi muy fasbir muy feelul amri la te feelul amri moom saa bu amee maanaam faaluhu damir feelul amri lil muxaatab damirun mustatir taqdiru huwa lay doon waxu anta damit mos a taqdiru anta selo amri lil muxaatab maanaam koo xam ne kii moom lay moom ngay waxal maanaam jàkkaarloog moom fii nag ki fi yàlla lay waxal di ko digal muy fasbir kan mooy faal jëla siñ bajaan di laaj maanaam kan la ci yàlla di waxal waaye tamit da ko ne fasbir wax ko ndigal loolu ne ko muñal ba pare ne ko kama sabara ulul azmi ni nga xam ne ñi ñoom la ñuy tudde ulul azmi mina rusul te maanaam mooy mën nañ ne ñi nga xam ne ñoo jiite yonente yi nañu muñe woon yàlla ne jëmm ji na nga muñe noona muy laaj ñooñu mooy ñan ulul azmi mooy ñan waaye muñ koo nga xam ne gi ñoom ulul azmi itam dañu ko muñeen ba tax kii muy waxal nii ne ko na nga muñ comme noo ñoom ñooñu nañu muñee seen muñ nga lu mu doon dañ ko naan almuxaatabu huwa sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ki ci yàllay waxal naa ko fasbir na nga muñ mooy sayyiduna muhammad la ci yàlla di waxal sayyiduna muhammad moo moom feelu amri bi mooy faayil fasbir anta ya muhammad da ko ne fasbir ayyuha rasulu ala ma asabaka min iza xawmika al mukazzibina laka na nga góorgóorlu ba yow muhammad xam ne yónni bii yónni bii ma la yónni day di nga ci daje ak ñama la yónni ay loraanga yu bare bare yoo xam ne yi ña la weddi gëmuñu la ñoo la koy teg waaye bu booba na nga muñ waaw nee na na nga muñ ci lépp loo xam ne dal na la ci ay loraange yoo xam ne yi mi ngi tukkee ci gaa yi nga xam ne ñoom la la yónni ca ñoom te boo demee dañ lay weddi lépp luñ la mën a teg ci ay loraange rek maanaam nee na na nga ko muñ daa di ko ne kama sabara ulul azmi min ar-rusuli min xablika wa hum ala al-mashhur nuuxun ibrahimu muusa wa isa ne ko wa anta minhum gis nga li mu wax ne ñan ñooy ulul azmi gis nga dane ko comme ni nga xam ne ñi ulul azmi noonu la ñu muñëwante mooy nee naa leen ñu ñu jiite yonente yi maanaam ñu doon juróom min ar-rusuli min xablika juróom lañu ñeent dañ cee jiitu Seydina Muhammad ab diir bu yàgg dox seen diggante muy doog a ñëw te fekk na moom moo leen juróomeel loo tax mu jiital ñeent yee ne ko kama sabara ulul azmi ne ko ulul azmi daal ni nu ko alxuraan waxee mooy Seydina Nuux Seydina Ibrahim Seydina Muusa Seydina Isa ñeent ñii nga boole leen juróomeelu mooy wa anta minhum ne ko yow mii Muhammad ci ci ñooñu nga bokk maanaam mu ngeen daal di nekk juróom kon daal ulul azmi mooy juróom ñooñu sayduna noox sayduna ibrahim sayduna muusa sayduna isa sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñeent ñee dañ ko jiitu lu yàgg te fekk moom sayduna muhammad ci la bokk bim ñëwee loolu tax mu ne ko fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul beneen bi ci des nag muy laaj bu am solo bi muy wama sabruhum waaw dafay laaj moom ustaas ne waaw yonante yoo nga xam ne yi ñooy ulul azmi te doon muñ muñ goo xam ne gii yàlla gërëm na leen ca ba yonenteem bii mu gën a fonk muy seen Muhammad nekkoon na nga muñ comme noona ña nañu doon muñee ñoom seen muñ googa gan muñ lañ doon muñ ba tax yàlla digal seen Muhammad ne leen nekkoon na nga muñ comme nañu muñe woon bu ko defee dañ naan wa iz axadna min annabiyina mithaqahum wa minka wa min nuuhin wa ibrahima wa muusa wa isa ibni maryama wa axasna minhum misaaxan xalisan lii mooy tegtale ne ñii ñooy juróomi yonent yi ñuy wax ulul azmi muy yàlla dane jële naa ci yonente yi kóllëre gu wér a wér goo xam ne gi dama ko jaarale sama diggante ak ñoom muy yonente yépp kon kóllëre googu moom séq nañ kook yàlla waaye ñi ñi ci gën a dëgër kóllëre ak yàlla mooy mooy wa min ka ji muy muy yow muhammad wa min nooxin ak noox wa ibrahim wa muusa wa isa ibnu maryam gis nga kon axas na minhum misaaxan xalisa ne ne ñii moom dama jàppanteeg ñoom kóllëre gu dëgër gu talatal goo xam ne gii yonte yépp laa ko seqa sax waaye ñoom ñi ñoo ci gën a dëgërle kon ñii loolu aay boobu dañ ci tegtale ne ñii ñooy ulul azmi bu ko defee sabruhum lan moo di seen ak muñ yuaddu sabru min abrazi sifaati allati tumayizu almumina alxaqa ne ne muñ dañuy jàpp ne muñ daal dafa bokk ci melokaan yi nga xam ne yii moo gën a feeñ ci loo xam ne day ràññale nit ki nga xam ne kii ku gëm yàlla dëgg dëgg gëm yàlla la ne ne nit ki daal bala ñoo xam ne ku gëm yàlla dëgg dëgg la maanaam ab jullit dëgg dëgg dëgg la dañu gis ne maanaam ab muñkat la fa sabru ala al balaa'i wa inda al masaib wa shadaidi tuzhiru mada xuwati imaani shaxsi wa taxamulihi ne ne muñ muñ balaa yi muñ musiba yi muñ tartar yi ne ne day feeñal dayo bi nga xam ne bii kattan gi nga xam ne gii gëm ak nit ki am na ko maanaam gëm bi nga xam ne fanaam fa nga xam ne fii fa la gëm ak nit ki toll ci dayo ci ni mu rëy ne ne maanaam nit ki muñ ci yii ma lim li ne ne maanaam da koy wone waaw waaw bu ko defee waxat daraba lana al anbiya wa rusul al kathira min al amthilati an sabri ala al bala ne nag yonente yi yëpp bàyyi nañu fi ay misaal yoo xam ne yii yu bare bari la yoo xam ne yii dañ ñu ko fee bàyyil ngir ñu mën a mu aju ci loo xam ne lii wàllu muñ la ay balaa ndax balaa moom maanaam muy nattu faw nu di ko am te la nu cee mën a génne rek mooy muñ ko defee mu ne waxat taxallaw jamian bi hadihi sifati ljayidati kay yataxammalu mashaqata daawati ila dinillah ne nag ñoom yonent yëpp nag jikko bi nga xam ne bii mooy mu ñoom ñëpp ko aman ndaxte mooy jikko bi nga xam ne bi dafa am gën a am solo ci li nga xam ne lii moom la ne yàlla yónni maanaam la ca nekk ci ay coono maanaam ñu mën ko gàddu maanaam muy woote nit ñi jëmale leen ci diine yàlla ji maanaam ku muñul rek maanaam doo ko man wa min ahammi sabri wa min ahammi addalalati ala sabrihim ma yali laqad sabara sayyiduna nuhun alayhi salaam fi daawati ila ibadati llahi alwahid bayna xawmihi alfa aamin ila xamsina aaman li oustaz laaj ci seen muñ gën ak ñoom ku ci ne gan façon muñ leen maanaam gën a xeet muñ leen ne ne li ñuy tegtaloo daal ci ne ñoom ay muñkat yu mag a mag lañu ñoo ci dàq muñ ne ne Seydunaa Nuux mii day bi ko yàlla yónnee sax na ca gaayam nga junni at yoo xam ne yu manki juróom fukki at la te saa su xëyee ay guddeem ak i bëccëgam yépp la muy woon it ña leen la mooy gëm leen yàlla def ko kenn maanaam bañ ko bokkaaleeg dara te di ko jaamu ne ne lii ci la Seydina Nuux sax junni at yoo xam ne yi maanaam manqué na juróom fukkeet maanaam juróom ñeenti téeméeri at ak juróom fukki at kon mën nañ ne Seydina Nuux sax na ko di woo gaayam te lam leen doon wooye du leen lu dul na ngeen mu wéetal yàlla kennal ko te di ko jaamu te gis nga terewut gaayam yi du moy ko kon Seydina Nuux muñam googu kawe na sore na lool te mooy nekk ci ay nit di leen woo ci lenn loo xam ne li seen njëriñal àdduna ak àllaaxira la ba def ko junni at yu manqué juróom fukki at yooyu te taxul nga yokkat bàyyi bàyyi maanaam mës sa yokkat benn yoon say woote ko nga xam ne moom la doon woote kon loolu ak muñ moo ko ko may waqad sabar sayyiduna ibrahimu alayhi salaam ala albalaa'i xilaala daawatihi ila ibadatillahi indama xaama qawmuhu bi jamee xatabi kay yushcilu naara bihi wa kaanati naaru bardan wa salaaman alayhi bi amrillahi dégg nga ne la bu dee ne cib tënk rek laay wax nii bu dee muñ ak Seydina Ibrahima ga moom itam ne ne la Seydina Ibrahim muñen mooy ba ko yàlla yónnee ñam ko yónni woon bañ demee ba bër bëgg ko sàkkalam pexey mooy dañoo wut matt mu bare bari di ko taal di ko xamb ba sawra sa tàng tàngaay woo xam ne lu naaw tiim ko rek daal di daanu ci biir sawra si ba ñoom ñu doon taal sawra si bëgg cee dugal Seydina Ibrahim maanaam mënuñoo jegeñ sawra si ngir mën a sànni Seydina Ibrahima ci biir sawra si waaye saytaane moo leen digal am xel ne leen da ngeen di wut ak mbaq ngeen def ko ci daal di koy sànni ci biir sawra si noonu la ñu sànni Seydina Ibrahima waaye sawra sa daa tàngan ba mënuñu koo jegal sax far ba tàbbal ci Seydina Ibrahim te terewut Seydina Ibrahima day moo ne bañ koy sànni ca sawra yokkatut delluwut ginnaaw ci la nga xam ne li moom la doon wootee ca la sa muñ ko donte ñu ngi koy tàbbal ca sawra sa itam te gis nga ci ci kaw muñam googee muy muñ mbugal mu métti moom ñu ko naroon a mu mbugal ca sawra sa muñ googu muñ ca la yàlla sukkandiku ci yërmaaneem def sawra soose muy ab sedd ak jàmm ci moom Seydina Ibrahima ndax gis nga alxuraan ni mu leeree wa kaanat naaru bardan wa salaaman alayhi bu fekkee dafa yem ci bardan rek maanaam buñ ko ca dugalee dina sedd ba sedd ba la la ñu bëggante sawra sa sedd ba dana ko ko def waaye gis nga yàlla dana bardan wa salaaman maanaam yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala ibrahima yàlla daa di daa daa daa di wax ak sawra sa ne ko yow sawra sii day sama jaam bii ñuy sànni ci yow na nga nekk ci moom ab sedd waaye nag nekk jàmm ci moom bu fekkee ne yàlla dafa yem ci kuuni bardan ja rek bu cay Seydina Ibrahima di dugg la ko sawra sa doon def la ko sedd boobu di def waaye gis nga bardan wa salaaman jamaanam moo ko ca génne maanaam mu daal di cay mucc waaye ba tey tam geneen muñ koo xam ne bi Seydina Ibrahima muñ na ko muy wa indama umira bi zarxe wala bihi Ismail nañu xam ne itam muñ bu mag a mag Seydina Ibrahima muñ na ko ci dafa dem ba doon mag doog a am benn doom muy Ismaïl dog caateeg Isaaqa Ismaïl moomu yàlla nattoo ko ci ne ko naanam na nga ko rey di ko ko yàlla digalee ne ko na nga ko rey Seydina Ibrahima dafa am ngëm gu rëy rëy ak muñ gu rëy rëy ci lu mu métti métti mu nara ne doom yooyu moom dina muñ ci xolam ba lii ko yàlla digal maanaam mu def ko ngir bañ a juyoo ak ndigala yàlla daal di dogu ci rindi doom jooju loolee ak muñ moo ko ko may waaye su muñu tamit maanaam mën naa am digal loola mu oyofal ko ba du am pas-pasab def ko waaye ba mu amee muñ xam ne yàlla moo ko mayoon te moo koy laajaat rek mu muñ am gëm yàlla ak ne nag kon naa ko ko joxaat gis nga yàlla daal di musal doomam joojee ba Seydina Ibrahim reyu ko waaye gis nga innamal amalu binniyati la nga xam ne lii bu ko yàlla bàyyin mu rendi ko itam da ko ko ca defal ci ay xewal moo mook doomam joojee yàlla daa di wëlbatiku ci seen muñ ga ak gëm ga ñu ko gëm ak ndungu ndigal la defal leen ca lu kawe la nga xam ne lii moom la leen ca nara na jox nag sax ci ay teraanga bu ko defee itam wa sayyiduna Muusa alayhi salaamu qad sabara ala ma alamma bihi min ida firawna wa jabarutihi wa tuxyaanihi bu dee ku mel ni sayyiduna Muusa la moom itam ak muñam moom itam mi ngi ajoon ci yàlla boole ko ki nga xam ne ki mën nañ ne moo gën a na saay-saay ci kaw suuf te bari woon doole lool gën a na nekk ki nga xam ne ki moo gën a na bew ci kaw suuf muy Firawna yàlla boole ko moom Firawna moomu maanaam lu ne mu won ko Seydina Muusa xas yu ne mu xas ko ko lu ne mu wax ko ko ak ñi nga xam ne ñi ñoo gëman Seydina Muusa ànd ak moom waaye terewut Seydina Moussa amoon muñ goo xam ne bii lépp lu ko Firawna mën a def rek ci lu métti ak ña mu àndal waaye mu wax wala mu wax ko ko rek loolu mu am gëm yàlla ak muñ ci xolam xam ne yàlla ko yónni te li nga xam ne lii moo koy dal ci ay métit ak i tar-tar di jóge ci saay-saay bi nga xam ne yi moom lañ ko yónni ci moom lépp daal na muñ rek te yàlla tax ba yàlla génne ko ca moom ña nga xam ne ñi ñu ñoo ko gëm ba xàjjale leen ñu génn dëkk ba bañ demee ba jàll dafa xam ne ca géej ga lañ jaar dañ koy tënk rek jàll firaaw na ñëw ak ñamu àndal daal dugg ca biir géej ga yàlla daal di leen labal ca biir géej ga wa sayyidina isa alayhi salaamu sabara ala ma alamma bihi innama wasafahu banu israila bil kazibi wa xuubilat daawatuhu lillahi bi rafdi wa wasala bihimul xaalu ila muxawalati xatlihi walakin allaha azza wa jalla xat kaafaahu ala sabrihi wa rafahu ila sama bu dee ku mel ni sayyidina Isa la moom itam la nga xam ne lii mën nañ ko jàpp ca muñam ga mooy la nga xam ne lii banu israila maanaam dañ ko ko tegan ci ay tuuma yoo xam ne yi dara amu ci maanaam ci dem maanaam weddi ko te weddi ga bokk na ca la ca gën a garaaw dañu noonu moom Isa mi mooy saalisu saalisu sala saalisu salatatin saalisu salaasa mooy ñetteelam ñett yi maanaam dañ ne Seydina Isa doomu yàlla la Maryama mooy yaayam xam nga loolu ak bokkaale gu rëy rëy la goo xam ne gii banu Israila teg nañ ko Seydina Isa waaye terewut mu jublu ca la nga xam ne lii moom la ko yàlla yónni inni abdullahi aataaniyal kitaaba wa jaalani nabiyan wa jaalani mubaarakan aynama kuntu wa awsaana bis salaati ma bis salaati ma dub na xayan bu ko defee la mu sax moom Seydina Isa ak muñ gu rëy rëy la goo xam ne gii loola ñu doon bokkaale yàlla naan Isa doomi yàlla terewut dafa muñ ba la nga xam ne lii moom la ko yàlla yónni woon maanaam mu fexey ba jàllale ko gis nga àgg na ci ñoom ñu dem ba ne Isa mi daal nañ ko sàkkal pexe maanaam nañ ko rey waaye ne ne la ko yàlla faye moom Seydina Isa ngir dafa muñ ba ba ñu ko tëralee ca bant ba takk ko ca ba ne dañ koy rey la ko yàlla faye mooy yàlla daf ko daal di yëkkati moom jëmm jë daal di ko yóbbu ca kaw asamaan daal di fay wuutal keneen koo xam ne kii daa wuuteeg jëmmi Seydina Isa ja wuutee ñu dara ci ña ko doon gis ñu defee ndax Seydina Isa la ñu rey ndekete woo booba yàlla yëkkati na Seydina Isa ci kàttanam ak man-manam ak ab xam-xamam ba tëral fa keneen koo xam ne kii daa niroo moom waaye doon dëgg-dëgg jëmmi Seydina Isa ja loolu la alxuraan di wax ne wa ma xataluuhu wa ma salabuuhu walakin shubbiha lahum yàlla ne loolu nga xam ne dañoo wax ne moom lañu rey lañu nañu ne dañoo rey Isa ne ne yàlla ne ne loolu amut ne ne reyuñu ko takkuñu ko ca bant ba waaye dañ leen faa dama faa def koo xam ne kii dafa wuuteeg dafa niroog Isa ñu def ko loola ñu ne moom lañ ko def waaye du Isa bu ko defee wa nabiyuna muhammadun xaatimun nabiyina wa imaamul mursalina sallallahu alayhi wa sallama faqad sabara ala ma laqaahu min rafdin fi daawatihi ila llahi xaytu taarrada lil muamalati sayyiati min ahlihi wa xawmihi bu fekkee ni nag dañuy mujj ci ñoom juróom ñii seen muñ ga ñu daanu su ci Seydina Muhammad mi nga xam ne moom mujj ci ñoom te moom mujj ci yonente yi te moo leen jiite ñoom ñëpp nag lim ñuy mujj a ñëw lépp ñu mujj a feeñ ne ne moom muñ na muñ ngoo xam ne gi lam ca dajeel ci ay coona ak i njàqare ak i métit yoo xam ne yi maanaam woote gam doon woote ngir jëm ci yàlla dong moo tax ñu di ko teg ne ne daj na loo xam ne lii kenn daju ko ci ñoom ñee te terewut da ko muñ gàddu coona yooyu ak loraange yoo nga xam ne moom lañ ko doon teg ndax ne ne bokk na ca la nga xam ne moom lañ ko doon teg ci ab jëflante bu ñaaw boo xam ne bi maanaam ay bokkam ya nga xam ne ñoo gën a nag bokk ak moom gën koo jege ñoo ko ko doon teg ñoom lépp loo xam ne lii lu ko dal la rek maanaam ne ne ca mbokkam yooyu maanaam ñoom ñoo ko jiite woon te ne ne bal wada tarra li tarki makkata wa dahab lil madinati yi gis nga ne ne dem na ba dëkk ba mu nga xam ne mooy ci saanam di makka dem na ba loraange ya tartaraange goo xam ne gii la mu doon doon amuñ ko terewut dafa dem ba xam ne léegi bàyyi makka rek te dem ci dëkk boobu ñuy wax madina rek maanaam mooy tax mu mën a jàllale li nga xam ne lii moom la ko yàlla yónni ndax moom jamono jooju doon doon sutte mukk ca makka loo tax mu daal di gàddaay génn makka dem madina kama sabara ala wafaati jamii awlaadihi fi hayaatihi ada fatimata radiallahu anha te na dem bokk na ci loo xam ne lii natt bu rëy rëy la yàlla teg ko Seydina Muhammad mu muñ ko maanaam delluwut ginnaaw ca lépp loo xam ne moom la war a def ca wàllu woote ngam jëmee ci yàlla ne ne Seydina Muhammad li mu amoon ci ay doom yépp moom ñoo doom yooyu ñoo ko jëkk a faatu moom Seydina Muhammad ba mu des Fatima maanaam doomam yépp ñoo ko jëkk a faatu ba Seydina Fatima mi nga xam ne mi moo doon soxna Aboubacar rek soxna Omar soxna Ali ngeen jëggal ma moo doon soxna Ali moom dong nga fi des ci doomi Seydina Muhammad waaye yeneen doomam yépp ñoo ko jëkk a faatoo waaye terewul loolu da ko muñ xam ne yàlla moom moo ko mayoon doom yooyu te moo ko jëlaat ci ni mu ko coobaree muy ñoom ñëpp ñu jiitu ko bala muy faatu moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon daal loolu ëpp tënk la ci lan li nga xam ne moom la kilifa gi laaj ci comme fas birja ku ko moom muy Seydina Muhammad ulul asmi muy juróom ñooñu muy Seydina Noox Seydina Ibrahim Seydina Moussa Seydina Isa Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam seen muñ nga it ku ci nekk dañoo tënk la nga xam ne li moo la doon dund di ko muñ waaye dafa yaatu lool lool bu fekkee ni rek du fatwa moom bu ci benn bu kenn ku mu ci doon ci ñoom mën nañ ca wax lu gën a yaatu loolu waaye fatwa la dañu koy tënk noonu rek su ko defee wa yatafaawatul anbiyaau alayhimu salaatu wasalaamu wa yatafaadaluuna fi sabri fa sabr fa sabru ulil azmi azamu sabri li annahum waajahu min al aza wa saddi maa lam yuwaajihu nabiyun xattu ne ne nag yonente yi fa ñuy rawante di ca gënante itam ci muñ la maanaam yonent yi ñoom ñëpp dañoo baax waaye terewut am na ci ñoo xam ne ñoo jiitu ñoo raw ñoo ëpp ay daraja am na ci ñoo xam ne ñi ñoo gën waaye nag lay sabab loola la ko xaj ji ba tax ñii gën ci yonente yi ñii ëpp ay daraja ci yonente yi la ko waral mooy ca muñ ga ca lañu doon muñee loolu dong moo waral ñii gënante ñoom yonente yi waaye di ëppalante ay daraja su ko defee nag ñi nga xam ne ñoom la ñu tudde ulul azmi te mooy juróom ñee ma doon wax ne na ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo ci dàqane muñ ñoo ci gën a rëy ak muñ ndax ñoom juróom ñii kat boo leen di xool maanaam la ñu jànkonteel ci ay coona ak gàllankoor goo xam ne gi dañ leen ko doon gàllankoor amul benn yonente boo xam ne bi maanaam dañ nga ko ci ñoom loolu tax ñoom ñi ñoom yàlla tànn leen jiite leen ñu nekk ñi nga xam ne ñooy juróom ñi nga xam ne ñi ñoom mën nañ ne ñooy kilifaay yonente yépp ñoo leen gën ñoo leen ëpp ay daraja wa qad jaa tanwihu bi dikri sabrihim fi xawlihi taala fasbir kama sabara ulul azmi min rusul ne ne ak yëkkati goo xam ne gi yàlla da koy yëkkati ak di di di naw di naw seen muñ goo nga xam ne gi moom la ñu doon muñ ñoom juróom ñii moom la yàlla naw ba di ko wax fii ci aayam bii ne mooy lii ostagement mooy fasbir kama sabara ulul azmi min rusul yi yow Muhammad na nga muñ comme ñi nga xam ne ñii ñooy ulul azmi te bokk ci yonente yi te yow ca nga bokk noonu lañ doon muñee yow itam na nga muñee noonu walif saabirina darajatun wa fadailu bayyanaha lahu fi kitaabihi faqad tarattabat ala sabri xayraatu dunia wal axirati nee na nag ñi nga xam ne ñi dañuy muñ te yàlla rek tax am nañu ay daraja yu kawe kawe am nañu ay ngëneel yoo xam ne yu rëy rëy la yu yaatoo yaatu yoo xam ne yi yàlla leeral na ko ci biir téeram bii ci ay aay yu bare bare bari yoo xam ne buñ koy jàngat aay bu mu ci mën a doon rek dañuy gis ne muñ kat ndekete yoo léppam maanaam yiwu adduna la ak yiwu àllaaxira ñi nga xam ne ñi ay muñkat lañu bu ñuy jàng ci alxuraan aay yu bare bare bari bokk na ca ñoom muñkat yow loo xam ne ni yàlla jagaleel na leen ko moo ne ixtasahumullahu bi maiyatihi ne ne ñi nga xam ne ñi ay muñkat lañu jullit yi nga xam ne ay muñkat lañu yàlla da leen jagale ne man yàlla maa ngi ànd ak ñi nga xam ne ñi dañuy muñ aay bi ne yaa ayyuha allazina amanu staayinu bis sabri was salaati inna allaha maa sabirin gis nga inna allaha maa sabirin maa ji mooy bi maayatihi ànd gi ñuy ànd ak yàlla fu ñu mën a nekk ne la loolu yàlla dafa mi ngi ko jagleen ñi nga xam ne ñi ay muñkat lañu ndax dafa woote moom yàlla ne yéen ñi nga xam ne ñi gëm ngeen dey na ngeen di dimbalikoo ci di muñ ak di saxal julli te xam ne yàlla mi ngi ànd ak ñi nga xam ne ñi ay woy muñ lañu kon gis nga maa yagaa ngoog wa fi siyaaxil fiatil asaabitati maa taaluuta yati sanaa alayhim kam min fiatin qalilatin galabat fiatan kasiratan bi idnillahi wallahu maa sabirin kii buur la muy taaluuta waaye buur la boo xam ne bi yonente ba mu dajee lan yàlla dafa wax ne yonente boobee ne ko maanaam banu is banu israel dañoo mas a sàkkoo ci yonente ba ne ko wutal nu buur boo xam ne bii dañuy jiite nu dem xeex ka yoonu yàlla jéem dañ noo génne ci suñuy doom ak suñu njaboot léegi ñu tànn leen kii ñu wax taaluta taaluta mii nag bi ñu leen ko tànnalee ci ni ma koy waxee ni ñu ko ni ñu ko alxuraan waxee maanaam mën nañ leen daal maa ngi jégalu baax ci wax ji dañ koo xeet ndaxte ñoom dañ doon taaluta mi nan la mën a nekkee suñu njiit te moom amut alal amut doole yàlla daal di wax yonent ba ne ko taaluta mii maanaam dama defaat ci moom leneen mooy dolli naa ko kattan gu bare bari waaye tamit dolli naa ko alal ju bare bari mu am xam-xamu mën a jiitab xeex lool ne ne mbooloo mu néew daal mujj daal ñoo topp taaluta nungoo ànd ak moom mbooloo moomee nag la ñuy néew néew lépp terewut ba ñu demee ba dajeeg seen noon ya maanaam yàlla def na ci ñoom kattan ak ngëm ngoo xam ne gi maanaam ñoo not seen noon yooyu la ñu néew néew moom itam xista bi lu gudd la ca mbooloo ma ba ñu doonee ñu baree bari ba àgg ca ndox ma ba ñu bari bañ leen teree ndox ma ñenn ña naan ca boromu bari foofu lañ defee ba lu néew des ak moom ne na ñoo ne la yàlla wax kam min fiatin xalilatin bari na mbooloo ma xam ne mi néew nañu lool waaye nag xalabat fiatan kase waaye la ñuy néew néew lool terewut ba ñu dajeeg mbooloo mu bari mais noonu doon ay noonu noone yàlla ñoom mbooloo mu néew mi ñoo leen gañe waaye nag bi isnillahi mu amee ci ndigalal yàlla ci ci ci ndimbalam wallahu ma saabirina te ngeen xam ne yàlla mi ngi àndati ak ñi nga xam ne ñi woy gëm lañu mbokk yi bokk na ci li nga xam ne li moom la yàlla jagleel ñi nga xam ne ñi ay muñkat lañu muy mahabbatullahi lahum maanaam yàlla dafa sopp dafa bëgg dafa xaritoog ñi nga xam ne ñii maanaam ay muñkat lañu yàlla daal di wax ne wa ka ayyin min nabiyyin xutila maahu ribiyuuna kasirun fama wahanu lima asaabahum fi sabilillahi wa ma daafu wa ma stakaanu wallahu yuhibbu sabirina yàlla ne am na ay yonente yoo xam ne rey nañ leen waaye nag bañ leen di rey it ànd nañu ak mbooloo mu bari moo xam ne mii day dañ leen a rayaale waaye mbooloo moomee day fama waxanu lima asabahum fi sabilillah doy diwuñu yoqituñu ca ngir la nga xam ne li moo leen dal ca yoonu yàlla woowee wa ma da'ufu wonewu ñi tamit ak néew doole ca xare boobu nga xam ne moom lañ doon xeex ànd koog yonente boobee ba ñu rey leen wamastakaanu nekkuñu fa di jàngat di jàmbat la leen dal ci ay coono waaye dañ ko muñ waaye nag mu ne ba loolu amee wallahu yuhibbu sabirin nañu xam ne yàlla moom ñi nga xam ne ay muñkat lañu maanaam ñooy xarite yàlla ñooy ay soppeem yàlla it ku leen bëgg la bokk na ci li nga xam ne lii yàlla jagleel na ko ñi nga xam ne ñi ay muñkat lañu itlaaxul bushra lahum maanaam ñu ñoom ñu muñkat yi di am mbégte moo xam ne mii ama amul fenn fu mu yem yàlla daal di wax ni wala nabluwannakum bi shay'in min al xawfi wal juu'i wa naqsin min al amwali wal anfusi wa samaraati wa bashiri sabirin wa bashiri sabirin yàlla ne da ngeen xam ne day yéen ñi nga xam ne ñi gën ngeen ma faaw ma di leen nattoo ci yi nga xam ne ñi moom laay lay leen di lim bi shay'in min al xawfi faaw ma di leen nattoo ngeen di tiit léeg-léeg wal jooy dinaa leen nattoo ab xiif wa naqsi min al amwaal yi dina leen di nattoo ngeen am alal ba jàgg si ngeen ñàkk ko wal anfusi ak it seeni mbokk di faatu bi shay'in min al xawfi wal jooy wa naqsi min al amwaal wal anfusi war samaraat dinaa leen nattoo yi tamit ngeen di bay léeg-léeg mbay ma du baax waaye ne lii lépp nag bu amee yéen ñi nga xam ne ñi gëm ngeen leen mu ne yow Muhammad na nga bégloo ña nga xam ne ñii ay muñkat lañu ñu ne muñkat ya mooy ñan mu ne alladina ida asaabathum musibatun xaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna muñkat ya kat mooy ña nga xam ne ñii lu leen mën a dal dañu dellu ci seen boroom xam ne dañu daal di wax ci seenu làmmeñ ni ñun kat ci suñu boroom la ñu jóge woon te ca la ñu delluwaat gëm ko ci seen ab xol waaw inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ulaika alayhim salawatum min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtaduna bokk na ca la nga xam ne lii yàlla jagleel na ko woy muy mooy ijaabul jazaa'i lahum bi ahsani amalihim wa tawfiquhum wa tawfiquhum ujurahum bi xayri xisaabin ne bokk na ci loo xam ne la yàlla jagleel na ko ñi nga xam ne ñii ay muñkat lañu ne ne ñoom ñooñu ko la nga xam ne li moom la ñu def te yàlla tax maanaam la leen ci yàllay feye mooy gën a baax la loolee nga xam ne li moom la ñu lebal yàlla waaye tamit yàlla da leen defal tawfiix yi maanaam lépp loo xam ne lii yàlla da leen koy fay rek maanaam ca seen jëf joojee ngir muñ ga ñuy muñ day doon loo xam ne li kenn du ko réglé maanaam dañ koy jàll rek du ko jóor muy muy tay goo xam ne bii dañ leen koy jox deesu ko natt deesu ko wàññ dañ leen koy jàll rek ngir muñ nga nga xam ne gii moom la ñu muñ yàlla ne innama yuwaffa sabiruuna ajrahum bi xayri xisaab yàlla day ne ne ña nga xam ne ñi ay muñkat la ñu dey maanaam ne la ma leen di fay dama leen koy matale jox leen ko mu mën sëkk sëkk te du doon loo xam ne lu ñuy régler la wala ñu di ko wàññi wala di xam nan la toll bokk na ca la leen yàlla jagleel ñoom muñkat yi alxusul ala darajatil imamati fi diini ne ne bokk na ci loo xam ne lii kuy muñ yàlla mën lañu mën lañu ko jox muy wàllu daraja ne ne ku doona muñkat rek maanaam bokk na ca la ca yàllay maye muy nga am darajaay ak ak jiite ak jiite ci diine maanaam doon kilifa ci diine ne ne bokk na ca la nga xam ne lii kuy muñ rek maanaam yàlla mën na la àggale ca daraja bu maanaam nga def kilifa gu ñu ràññe ràññi ci diine mu ne wa jaalna minhumu aimmatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kaanu bi ayatina yuqinuna ne ne am na ci ñoo xam ne ñu def naa leen ay njiit aimmatun mooy jamu imam def naa leen ay njiit nga xam ne ay njiit la ñoo xam ne yahduna bi amrina dañuy gindee ci sama ndigal man man yàlla ne ne loolu nag kañ laa leen koy may lamma sabaru ba nga xam ne ni dañoo muñ wa kaanu yuuxinuuna bi aayatina tey ñu gëman aaya sama alxuraan ji nga xam ne ji moom laa wàcce kon daal mbokk yi laaj bi am na solo lool ñuy jégalu bu baax a baax dellu di ndokkeel mbokk yépp rek du ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiix te it ñu ñaanal lépp lu ci jub rek ñoo xam ne mbaax ak yàlla la ak coobareem waaye lu ci dëngit ñu jéglu ko rek ngeen mut nañ ñu ko ci seen ak mat te xam ne ci manqué rek mbokk mi doon wax la rek muy doomu aadama ñuy jéglu bu baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatullah jaxandu naa di la ci buum goo xam ne mat lii nii moraati la du dagg du yaram lu mel ni gàncax gi léegi tubaab yi di ma buute mbàyyi ni ko njoowaane ko ne ay dafay damay wat waaye fekk babil xurwatul wusaar buum ngaa nga jàpp ca ci yàlla jàpp ci rasulullah ma nga ci digg bi ñu demal ngi buute mbàyyi di leen laa wat dama leen xool rek tama sartu di rabbil mat lii nii moraati lan wabil xurwatul wusaar la si yalmur bii sirtu min rabbi وهمدا وهول المسارع والبهور تمور هو الكنز والكبريت ترى تعالي هنا بي تنتهي نار حدا وشر كتاب كريم من كريم مكرم لعب الكريم للغديم يمين كتاب مجيد من مجيد من مجيد لا من مجيد للكفور يلير لتام توتال نون كتاب تير يالا بي تير بي بام دا كات يالا مي ديف تير بي كات كنا جيرل مون كو يوني غا تاد دي ملائكه رسول الله مي مون كو اندي مون غا تاد دي جاب مو دا كتاب تير بو دي كريم اكا تاد من كريم توكي تي كو تاد من كريم مكرم كو تاد كو دي ليب كريم جيم ci jàmm ci àddina